alhamdulilahi xaqa xamdih wasalaatu wasalaamu ala abdihi wa rasulihi wa man tabica nahjahu ila yawm iddin amma baad mbokki jullit yi ñoo ngi sant suñu boroom tabaraka wa taala di julli ci ab yonentam di ko ñaanal ak ay saxaabaam ak képp ku ko topp siraatul mustaqim xéewal ak njub ak mucc adduna ak alaxira di leen dénk di dénk suñu bopp ragal yàlla ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem te sellal ko ginnaaw loolu yi yiñ fi tàmbali woon ci ay xutba yu weesu muy charte laa ilaha illa xamoon nañ ne laa ilaha illa du baat boo xam ne da koy wax rek ci làmmiñ mu doy waaye dafa am charte yi muy àndal ñu tuddoon ca la weesu ci ay xutba yu tegaloo juróom-benni charte waroon koo àggale xëy ni ci xutba bi weesu am yu gaaroon yoo xam ne moo taxoon ñu taxawlu war koo àggale insha allahu ci xutba tey bi charte bi nga xam ne mooy charte juróom-ñaareel bi moo di nangu baat bi nangu baatu laa ilaha illa allah bu ñu waxee nangu baatu laa ilaha illallah nag bokku la rek ñu ne la waxal laa ilaha illallah nga ne laa ilaha illallah waaye mooy nangu li mu làmboo xool ndigal ya nga ne kuy wax laa ilaha illallah dañ la koo digal nga xool tere yi nga xam ne képp kuy wax laa ilaha illallah da koo war a sori nga sori ko kon loolu mooy nangu gi ki nanguwut laa ilaha illallah kooku daf koo delloo donte mi ngi wax laa ilaha illallah nag suba ak ngoon di ko lim waaye ginnaaw taxawul ndigal yi tere yi bàyyiwu ko kooku waxut laa ilaha illallah donte mi ngi koy wax ci làmmiñam kooku daf koo delloo borom bi tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali ci alquran ñi nga xam ne musal na leen ci sababus laa ilaha illallah mu wane ne seenu nangu ko moo tax moo tax mu ne summa nu najji naa musal naa samay yonent walladina aamanoo ak ña gëm kon ci sababus ngëm gi mu ne nag kadalika xaqan aleyna nunji lmuminin loolu it mooy saaw doxalin képp koo xam ne gëm na laa ilaha nangu ko kooku maa koy musalal saa bopp borom bi tabaraka wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo gëm seen gëm wér maanaam seen laa ilaha illallah wér ñooñu suñ leen woo ci lu jëm ci yàlla akub yonentam innama kaana qawla almuminina ida duu ila allah wa rasulihi li yaxkuma baynahum mépp mbir moo xam ne yàlla moo cay woote akub yonentam muy alquran ak sunna suñ leen ca woo lan mooy doon seen tons nee na an yaqulu samina wa ataana nee ñu ne nun day dégg nañ li nga wax danaan ko def nee na loolu mooy doon seen tons kon dégg ci nopp déggin woo xam ne jëf moo cay toftalu su dee lu ñuy bàyyi bàyyi ko moo cay toftalu kon ñooñu mooy ñi nga xam ne seen laa ilaha illallah wér na ci seen xol te nangu nañ ko loolu moo tax nangu googi nangu googu boroom bi tabaraka wa digle ko ci alquran ne dee leen nangu tawxid yaa ayuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla istajibu lillahi wa lirasul wuyu leen seen boroom wuyu leen seen boroom akub yonentam ida daakum lima yuxyikum su fekkee woona leen ci lu leen di dundal li leen di dundal loolu moo di laa ilaha illa allah kalimatu mooy dundal xol bi fii ci àdduna mooy dundal nit ki ëllëg ci àjjana kon su leen woo ci li leen di dundal na ngeen gaaw wuy ci borom bi tabaraka wa taala tere na itam nit ki ñu gaaral ko woote bi laa ilaha illa muy woote bi ak yam làmboo mu won ko gannaaw moo tax mu ne bu leen mel mukk ne ña nga xam ne dañ ne leen kaay leen wuyu yàllaa ko yonentam xaaloo samina wahum laa yasmaoon boo waxee rek ñu ne ah dégg naa ko de dégg nañ li nga wax dégg nañ li nga wax yem ca buñ gisee kuy woote ñu ne ah kii ci lu muy wax ñu ne ah ñii de ñooy ñuy waxtaan ci tawxid ak yu mel na ñu ne ah jullit yëpp ay jullit lañ ñëpp am nañ tawxid kon jaratul waxtaan ñooñu mooy mi ngi nga xam ne dañ ne sami'na wa hum la yasma'un nee nañ ñu ngi dégg mbir ma nee nañ xam nañ ko waaye dégguñu xamuñu ndax suñ déggoon xam kon jëf moo ci tebu su dee lu ñuy bàyyi bàyyi moo ci tebu borom bi tabaraka wa taala nettali nañ ci alquran ne baatu tawxid bi ña ciy jëkk jiitu ci nangu ko làng bu njëkk ga sàppe su njëkk sa ci ña nangu tawxid mooy ñii nee na moo di yonente ba ci boppam amana rasul kon yonente bi moo jëkk gëm baat boobu nangu ko ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm kon ña ko gëm ñi ci jiitu mooy saxaaba ya sësoon ci moom rëkk mu teg ca lan mu ne ak malaayika yi kon sàppe soo xam ne yonent baa fa nekk ak malaayika yi ak muuminoon yu jëkkee muy saxaaba ya abubakar ak omar ak osmaan ak ali ku bëgg a bokk ci sàppe soosu nee na da ngay nangu ko kalimatu tawxid baatu tawxid ñoom ñëpp lan lañ maase wax nee nañ samiana wa ataana gufranaka rabbana wa ilayka almasir ànd nañ ñi taxaw ci kanamam ne samiana wa ataana boole ñaari baat yu am solo dégg nan déggu xam waaye itam danañ jëf maanaam dégg goo xam ne dafa ànd ak jëf bokkut ak ñeneen samee naa waxum laa yasmaoon bokk la ñi nga xam ne dañ nga dégg nañ ko fekk dégguñu nit ki fi muy nattoo ak nangoom laa ilaha illallah ak ñàkk koo nangoom du ci làmmiñ wi kese làmmiñ wi ci la ndax jullit bi faaw muy wax laa ilaha illallah tudd yàlla la lu baax la lu am tuyaaba la dañ ko ci bindal ay tuyaaba waaye nag yemut foofu fi ñuy xamee nangu na ko ak nanguwu ko dëgg dëgg dëgg mooy ñu natt ay jëfam ak i bàyyeem ndax bu yàlla tànnee ni nii la day ñëw yorom xelam ne ah lii kat suñ ko defee woon nii noonu lay gën kon man nii laay def wala day ñëw rek ne xam naa ne ki ma bind xam ma ginnaaw moo ma tànnal li ma tànnal moo gën ci man mu jëfe loola su fekkee noonu lay jëfee kon kooku mooy ki am laa ilaha illallah mooy ki nangu laa ilaha moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne ma kaana li muminin wala mumina amul benn jullit bu góor wala jullit bu jigéen ida qada allahu wa rasuluhu amran yàlla atte ab atte dig leen digal moo ko yonentam muy ñëw di am lu muy tànn muy ñëw di am lu muy tànn ki gëm yàlla moo xam góor la wala jigéen niñ koy xamee moo di borom bi tabaraka wa taala du digle moo ko yonentam duñ santaane mu ñëw di am lu muy tànn ak lu muy bàyyi lii dañ koo diglee ñu ne mu ne ko woon baax na naa ko jëfe tànn googu nag léeg-léeg fu ne la mën a jóge nit léeg-léeg mu jóge ko ci anamu dañ naan ko lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko diglee mu ne ah kon ma xool ba xam farata la am sunna ma xool ba xam farata suñ ne koo sunna la mu ne ah kon de sunna mooy loo xam ne bu la neexee def bu la neexee bàyyi kooku daal di indi musiba ci ñàkk a topp nit ki toogoon ci këram ba mu yàgg papaam woo ko diw sangam kaay demal béréb sangam waxal ma nangam ak nangam ak nangam ndax day taxaw di xalaat ndax yónni bii ñu ma yónni farata la boo xam ne dama cee war a dem wala sunna la boo xam ne su ma neexee dem su ma neexee topp defe naa ne ki bàyyam woo yónni ko mu dem rek moo ciy tegu daal di dem rek da ciy teg waaye du xalaat ndax sunna la wala farata kon nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne bi la yàlla bindee moom la yebal ci yow mu lay jottali ay ndigalam ak ay tereem su la nee defal def rek moo la war li feeg yaa ngi koy man nag li feeg yaa ngi koy man waaye su ne bàyyil nag bàyyi rek moo la war moom bàyyi ñépp a ko man moom bàyyi moom doo ni lii laa mën a bàyyi tey bu ëllëgee ma bàyyi la ci waaye bàyyi lépp benn yoon ndax bàyyi yomb na moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne bu ma leen digalee ndigal def leen la ngeen ca man waaye su ma leen teree bàyyi leen kon tere moom bàyyi rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ab ñi ko jëkk a gëm bokk na ci li ñu rawee nit ñi mooy ak nangu xabool dem na ba àgg ci jinne yi sax jinne yi ko doon déglu sax seenu gëm àgg na ci mooy nangu ga ak déclaré ne nangu nañ moo tax ci sóoratul jinn borom bi tabaraka wa taala mi ngi leen di nettali ci biir waxi jinne yi ñu ne wa anna lamma sami'na alhuda amanna bi ñu ne noonu day noo ngi nii biñ déggee rek njub gi nekk ci biir alquran danoo daal di gëm daal koy nangu kon jinne yu baax yaag nit ñu baax ñaag malaayika yaag yonent yàgg ñépp raw nañ nit ñi ci kaw nangu kàddu tawxid kon jullit yi loolu mooy yoon wi ginnaaw borom bi tabaraka wa digle na ko tere na wan tawxid gannaaw wane ne ña jiitu ci tawxid mooy yonent yaag malaayika ak nit ñu baax ñaag jinne yu baax ya ba noppi ñu won la ne ñàkk gee nangu am na musiba yu mag yu ci mën a tegu kon loolu lu mat a bàyyi xel la ndax kat ñàkk gee nangu lu bon ci nit la ndax kéefar lay yóbbe nit loolu mooy li musiba mi ci jiitu borom bi tabaraka wa nee na bi muy nett li mbirum yéefar yi mu ne innahum kaanu ida qiila lahum laa ilaha illa yastakbiruun yéefar yi nee na liñ daan def mooy suñ leen woone leen kaay leen ñu wéetal yàlla rek jaamu ko moom dong nee na loolu duñ ko mën a dékk duñ ko mën a dékk dañuy rëy rëylu yëkkati seen bopp ba defee ñoom ñoo féete kaw di jaamu jenn yàlla rek ndekete suufe ga mi ngi ci jaamu ay yàlla yu bari suufe ga ndekete ci jaamu yàlla yu bari la nekk ñoom ñu defe ne eh, seen daraja àgg na ci dañoo war a mën a jaamu téeméeri yàlla wala nangami téeméeri yàlla comme niñ tegewoon ca kaaba ga ñetti téeméeri yàlla ak nangam yoo xam ne yëpp dañ leen di jaamu defe ne daraja lan daraja nekk foofu loolu moo tax buñ ne leen wax leen laa ilaha illallah maanaam wéetal leen yàlla ñuy rëy rëylu di yëkkati seen bopp ba tey it nag nit ñi ci seen jëmbi bopp xëy na sampatuñ ay xéram yoo xam ne ñoo koy samp di ko jaamu waaye lépp loo xam ne day gàllankoor jullit bi digganteem ak jaamu yàlla moo xam alal jum bëgg la ba muy dox digganteem ak jaamu yàlla moo xam ak njaboot la ay góor ak jigéen yoo xam ne dem nañ bay gàllankoor ko dox digganteem ak jaamu yàlla wala ay yitte wala bëgg àdduna wala nu mën a demee wala daraja sax lépp lu koy tënk ba du mën a tinki ku dem jaamu ji yàlla rek loola taxaw na palaasu xiram ci moom taxaw na palaasu xiram ci moom kon na wattandiku na wattandiku laa ilaha illallah mi yàqu te fekk du ko yëg ndax lay tax du ko yëg mooy yooyu kenn tuddiwu leen ay xiram ànd ak ne mën nañoo gàllankoor nit ki ba dox digganteem ak jaamu yàlla beneen bi ci des it mooy tawxiid ci boppam ñu bari dafa diis ci ñoom ci seen njort fekk na bakkanu doomu aadama lam baaxoo woon moom mooy tawxiid borom bi tabaraka wa taala ci fitratu tawxiid la bind nit ñi fitratallahi allati fatara annaasa alayha la tabdila li xalqillah zalika diinul qayim walakin aktar naasi la yalamoon borom bi tabaraka wa taala bi muy bind nit ñi da leen a bind ci wéetal yàlla waaye nag comme ni mu ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci xadis ba ma min mawludin illa yulidu ala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani nit ki buy juddu day indaale tawxid waaye bii abi muy environnement bi muy dund kër géeg mbedd meeg école bi ak la muy seetaan ak fa muy dugg ak fa muy génn nee na ñooñu ñoo koy soppi su demee ba lenn nekk ci xelam lu bokkul ak tawxiid ñim fi fekk ci ñoo ko fa teg waaye moom ba muy ñëw aw këyit bu weex tàll la woon wa indaale ak sell loolu nag mooy tax nit ki dana dem ci yooyu ko tënk mu yi muy gis nga xam ne digganteem ak tawxiid day mel ne asamaan su amoon aw niir doo mën a gis jant bi wala bu dee weer doo mën a gis weer bi niir yooyu day dem a dem a dem ba bëccëg bi sax day mujj mel ne guddi day mujj mel ne guddi moo tax nit ki day dem ci wàllu tawxiid ngir yi koy téq ak yi dox digganteem ak tawxiid ak yiñ koy wan ci kanamam ne ko ñii ñooy ñu màgg ñi bu fekkee aw nit lañ bu dee ay yëf ñu ne ko yii mooy yu am solo yi yooyu day yëkkatiku ci kanamam ba day àgg ci boo ne ko sax yii ngay wax nii wala ñii ngay wax nii dëgg la nit ñu baax lañ ñu am daraja lañ ñu baax fa yàlla lañ insha allah ndax ay jaamukat yàlla lañ waaye nag yeyoowuñ dara ci jaamu jàppe leen ay doomu aadama te jaamu yàlla képp loolu day daal di diis ci xolam na koy jëkk a firé mooy yow xanaa da ngaa bañ ñooñu da nga leen a bañ fekk ndekete seytaane mooy bëreeg moom mooy jax-jaxal xolom waaye la wér wér moo di porom bi tabaraka wa taala su fekkoon ne du dafa am yu muur sa xol ba nga jàpp ne am na ñeneen ñu yeyoo dara ci cëri yàlla yi su fekkoon ne loolu amut tawxiid su ñëwee rek xol bi daf koy daal di nangu teewul nag am na ay doomu aadama yu bare bari yoo xam ne alhamdulilah seeni xol tawxiid moo ca nekk ya ko doon muur ci ay niir ak ay lënd ak yépp dindi nañ ko ba mu set wecc ci jàng ak xam ak ràññee ak xàmmee jëfandikoo sam xel mi la yàlla jox ci la nit ki di xamee ci lay sukkandikoo ak ndimbalu yàlla ba xam yooyu kon wan gannaaw tawxiid moomu bu ñàkk a def xabool musiba yu bari lay indi bi ci jiitu mooy mën naa tabal nit ki ci kéefal beneen bi mooy taqale jullit yi jullit yi suñ bokkatul tawxiid laa ilaha illa su leen booleetut dara du leen boole dañuy tàqale ko laa ilaha illa allah rek moo leen mën a boole moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy melal saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa daf ne fa in aamanu bi misli ma aamantum bihi faqad ihtadaw su fekkee ni ñu nar a ñëw ëllëg gëm nañ ngëm gu mel ni seen gos yéen saxaaba yi ñoo ñooñu kon gindiku nañ mu teg ci lan wa in tawallaw su fekkee nag wan nañ ginnaaw ngëm gii ngeen nekk mooy bañ a nangu tawxid bu sell bii fa innama hum fi shiqaaq suñ wanee gannaaw tawxid rek ci juuyoo la ñuy dëkk ba faw kon képp kuy woote nit di wax ne da ngaa bëgg jullit yi nekk benn da bëgg ñu jàppalante da ngaa bëgg ñu dimbalante xamal ne li leen mën a boole mooy tawxid wéetal yàlla ne yàlla di buur bi moom dong yeyoo jaamu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di royukaay bi ci moom dong lañuy ñuy jële diine ñi ci des ñëpp nag doon ay màndarga yuy jàngale ci yoon bi jaaral fii jaaral fii bul jaar fii loolu mooy seen itte nit ñu baax ñeeg ñépp seen itte foofu la toll ñetteel bi ci musiba yi nga xam ne woon gannaaw tawxid dana ko indi moo di xañ nit ka cofeelu sunu borom tabaraka wa taala yal nañ ci yàlla musal borom bi tabaraka wa taala ne qul atiu allah wa rasul nangul leen yàllaa ko yonentam te topp leen fa in tawallaw su fekkee war ngeen gannaaw loolu muy topp yàllaa ko yonentam te mooy tawxid fa inna allaha la yuhibu alkafirin su boobaa loolu kéefar la leen di yóbbee te yàlla bëggul yéefar kon bëggeel gi nga doon wut muy sa borom sopp la nga xam ne ba la xasee sopp moom sa lépp baax na loolu daf la koy xañ wal iyaasu billah ba ca tegu ci musiba yoo xam ne wan gannaaw tawxiid daf koy indi moo di borom bi tabaraka wa dem ba doylu ci yow soxlaatu la wacc la dem indi ñeneen nag ñu la gën kooku itam musiba la yàlla bu nu yàlla wacc di indi yeneen moo tax mu ne wa in tatawallaw su fekkee ne won ngeen gannaaw woote bi yastabdil qawman xayrakum dana leen weccee ñeneen dana leen weccee ñeneen summa laa yakunu amsaalakum te ñooñu buñ dikkee duñ mel ni yéen ñoo leen di gën fuuf kon loolu ngir mu rëy la moo xam ne jullit bi war na ko bàyyi xel ba tey bokk na ci musiba yooyu moo di ki woon gannaaw tawxiid ku wéet la war a doon ci askan wi ndax borom bi tabaraka wa taala dafa digle ñu set wecc ci moom wan ko gannaaw wan ko gannaaw moo tax ci aaya ba muy wootee ahlul kitaab qul yaa ahlul kitaabi taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum ba mu demee ba ci mujj ko def ne fa in tawallaw su fekkee ne wane nañ gannaaw wan nañ gannaaw tawxiid fa qulu ashhadu bi anna muslimun su boobaa yéen seet leen ci ñoom wecc jàpp ci seen lislaam kon charte yooyu ñu tudd juróom-ñaari charte la yoo xam ne saa bu dajee àndandoo wér jullit bi insha allahu tawxidam wér na mu des rek lenn loo xam ne mënta ñàkk te lenn ci boroom xam-xam yi tudde ko ab charte waaye mën naa nekk charte mën naa nekk résultat yi itam ci jàpp ci juróom-ñaari charte yooyu boobu mooy ban mooy sax ca loolu nag bi mu ñëwee ba àggal nga sax ca nag ba dee fekk la ci ndax kat yëf yi dëgg dëgg nekkul ci fexe naa ba trouvé rek dëgg mën nga ko trouvé mën nga koo xam ba xam-xam-xam bi mu des beneen jéego mooy di ko jëfe ginnaaw xam nga dëgg yaa ngi koy jëfe yaa ngi ci aw yiw waaye ba sa xel dalagoon de des na muy lan muy sax gi kañ nga ciy soxla ba kañ ba keroog la ci dee di fekk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne mi ngi ci buxaari muslim xadisu abi dar daf ne amul benn jaam boo xam ne dana jot kalimatu tawxid muy baatu bu wéetal yàlla laa ilaha illa jàpp ci nee ba dee fekk ko ca nee lu dul rek ajjana muy këram kon ki sax ci la ilaha illa allah ak yam ba dee fekk ko ci kooku àjjana la jëm loolu moo tax sax ci mbir mi muy way bañ a déng déngi bañ a dellu gannaaw bañ a bàyyi la nga nekkoon borom bi tabaraka wa taala daf koo digal yonent bi ne ko fastaqim kama umirta saxal nii ñu la ko digale wa man taaba maaka ak ñii ànd ak yow te gëm lii nga leen di woo sax googu mooy yoon wi yàlla xàll ne la jaar ci yaag saxaaba yi ngir jaar ci bu leen teggi bu leen taxaw bu leen dellu gannaaw dox ci yoonu sunna ak yoonu sharia ñett yooyu mooy ab gàkkam boo teggee rek musiba am na mooy tàbbi nga ci biddaa dugal nga ci diine ji loo xam ne yàlla indiwu ko ci yonent bi indiwu ko ci kooku mooy teggi taxaw mooy dem ba mu yàgg diine ji ñoratu la sa adduna kese moo la tax a jóg léegi farata yi daal xam naa bu jotee rek da nga dem julli bu wor jotee mënoo bañ wor woor ndax ab jullit nga nga woor julli waaye nag programme boo xam ne mooy jëmale diine ji kanam ak fooy jaar ba yow sa imaan di dolliku loolu nekkatul sa programme kooku mooy taxaw li ci des nag waliyasu billah mooy yées lépp mooy dellu gannaaw faf bàyyi nag la nga nekkoon yàlla nañ ci yàlla musal kon <coughs> yonente bi sallallahu alayhi wa loolu ko yàlla digal nga xam ne mooy sax ci diine ji moo ñi ko gëm sax ci njub boroom xam-xam yi nee nañ loolu mooy ndigal li gën a rëy loo xam ne mas nañ koo digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ndigal loolu su ko jullit bi toppee ci lay amee ngañaay ci ay noonam muy sax ci njub sax ci njub ñu bare bari dañuy toog sàggane seen bopp sàggane seen njub sàggane seen topp sunna ba noppi defe ne nag ndimbalul yàlla dafa war di ñëw nag jamono yu nekk déedéet faw am na jullit bi nu muy mel noo xam ne xanaa day ñaan yàlla musal ko ci mbugal dafa war a tiit di ñaan yàlla musal ko ci mbugal waaye di séentu yàlla yónnee ko ndimmal ci kawi noonam te fekk melokaan woowu la yor déedéet moo tax jullit yi ci defar seen bopp ci defar seen bopp ci lañ war a tàmbalee lenn ci asalafu saalix dañ daan def buñ masaan génn sax nekk ci xeex di jihaad fi sabilillah léeg-léeg ñu jaamaarloog noon yi gañe ci ëllëg suñu jaamaarloog noon yi noon yi gañe leen suñ leen gañe wax nañ ne seen njiit buñ masaan toog ci guddi gi di xool liñ yendoo tey lam leen di jëkk laaj mooy li nu dal tey guddi ga ko jiitu wax leen ma yan sunna ngeen sàggane ba tax lii nu dal dal na kenn ku nekk di lim la mu def man de bi ma daataan tëdd nangam dafa daloon na ma nangam daloon na ma ba mu dégg ku wax loo xam ne xam na ne loola la jooyoog sunna la mu ne ko yow yaay sababus li nu dal tey yow yaay sababus li nu dal tey loolu ma ngi koy xiyaas ca la daloon jullit yi ca Uhud bañ juuyoo ak ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon loolu suñ demee ba li ëpp ci xeet wi ci kaw suuf tey seenu dox jëm ci lu dul sunna càggante gi jéggi dayo mooy yàlla gi colum jigéen ñi caaxaan yi pomi ba noppi nga toog rek ne damay tàll samay loxo yàlla wàcce ndimbal yi noon yi de yahood yi nasaraan yi nangam nangam su ko defee jullit yi lislaam ji yëkkati ko déedéet du noonu faw jullit yi defar seen bopp faw ñu defar seen xol yi faw ñu defar njub faw ñu am tawxid faw ñu topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon a yeyoo ndimbal lu jóge ci borom tabaraka wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aaya boobu bi mu wàccee ci moom muy fastaqim kama umir te jubal te jàddati nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne laxasaayu leen dafa woote laxasaayu leen laxasaayu leen ñu ne aaya boobu gannaaw bu mu wàccee ci suuratu Huud kenn gisaatul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ree kon loolu du lu woyof kenn gisaatu ko mu ree maa ru'iya daaxikan ba'daha Abdullahi ibnu Abbas nee na aaya bi gën a tar ci bu mas a wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo di aaya bii fastaqim kama umirt jubal ni la ko yàlla digale bul jàdd bul taxaw bul yokk bul wàññiku mu ne mooy bi ci gën a tar moo tax aay bi nekk suuratu Hud Sufyaan ibnu Abdullahi Saqafi eh, bi muy xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg mu gis ci sikkimam bi mu ne ko yow yonent yàlla bi day yaa ngi bi jaaw ñu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la lam ciy junj yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam na ko dañoo gis ne yaa ngi tàmbalee bi jaaw li mu ko tontu mu ne ko shayyabat nii hóodun wa axawaatuha mu ne ko suuratu hóod ci boppam mooma bi jaawal abdullah ibni masud ci fiqam daf ne li bi jaawloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci suuratu hóod waaye mooy li borom bi tabaraka wa taala ne ko fastaqim kama umirt jubal ni la ko yàlla digale nee aaya boobu moo bi jaawloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon benn jullit bu nekk loolu war na ko bàyyi xel war naa yëg ne jaadu na ci moom mu gëstu li da li baax gëstu dëgg ngir xam ko bu ko xamee jaadu na ci moom mu jëfe ko bu ko dee jëfe jaadu na mu sax ci ñu yëg ne sax ga mooy li gën a jafe li gën a jafe ndax yiitee nit ki sax ca lam nekk dafa bari am na yoo xam ne yu lay bànneexal la ngir nga baax yu lay bànneexal di neexal sa bakkan nga xam ne boo ko toppee rek sa diine moom danga koy ñàkk yeneen yi yu lay tiit loola di la xoqatal ngir nga dellu gannaaw ci sa diine wala nga bàyyi ko lu ci nit ki topp lu nekk nag rek dana ko yàqal diineem te àdduna ak li ci biiram jarul yàq sa àllaaxira kon sax googu su fekkee ne am na mooy jural nit ki ak dëgër nag ci xolam ak dëgër ci aw doxalinam lu mbir tar-tar akub nattu akub metit loolu du ko tax a dellu gannaaw ci diineem du ko tax a jàdd itam lu nooni lislaam ëpp ëpp doole askan wi ak lor ji lu metti metti ci kaw jullit yi du tax ñu bàyyi seen diine du tax ñu am ci sikki sàkka dañuy yëg ne qul huwa min indi anfusikum dañuy yëg ne feebar bi ci biir xeet wi la nekk ñu dellusiwaat saafara seen bopp ngir borom bi tabaraka wa taala yërëm leen jéggal leen sax googu mooy indi ak dëgër ci wootekat bi ba tax du dellu gannaaw ca la muy woote di woote lii tey bu ëllëgee mu bàyyi loola jëm ci leneen wala mu jaar ci wi yoon bu ëllëgee mu teggi jëm ca weneen a ah, xanaa jaar ci weneen woon ba mu yàgg mu xam ne wee gën a jub mu bàyyi wam nekkoon jëm ca wacca des waaye du dellu gannaaw kon mooy tax nit ki mën a taxaw ci kanam bànneex yi ci àdduna yépp ñu bëggee dox digganteem ak diineem mën na ko sànni ci gannaawam dem yoonam lënt yi ci kaw suuf yépp yoo xam ne day tax nit ki sikk sàkk ci diineem dëgër googu dana ko dàq mu dem lépp loo xam ne daf koy tee topp yàlla akub yonentam ak loola lu mën a doon ci àdduna ak li ci biiram bu ñu ko boole woon it jaral na ko bàyyi loola te wéy ci yoonu topp yàlla ak yonent bi donte àgg na ci deseetul dara kon borom bi tabaraka wa loolu mooy li nga xam ne bu ko nit ki defee taxawee na lenn ci xaqam muy xaqi mbéetal ko su xasee am nag mooy tawfiix dañ wax ca gannaaw muy koo xam ne su ko boolewut ak bakkaar yu mag kooku alhamdulilahi bu soobee yàlla dégg bégal nañ ko ci àjjana su yóbbaale bàkkaar yu mag it ginnaaw tawxiid boobu moom yóbbaale na ko ba tey itam borom bi tabaraka wa taala na ko ne ci waa àjjana la bokk donte mën naa jaari feneen yàlla na yàlla musal ci jaari feneen loolu kon mooy gàttalug lu aju ci loolu bala ñoo jeexal ñu mujje ne kenn ku nekk xam na yi ñu toll jamonoy coow lañ tollu jamonoy eh, nit ñi war a ànd ku dal wala ànd ak seeni xel itam jamono yoo xam ne mu kallaf war naa jàppe bopp boppam mu kallaf di wax waxi responsable di wax waxi nit te ñu yëg ne loolu yi nga xam ne yoon daf ñu ko jox muy sunu droit muy nga sañ a xool ña lay jiite nga tànn ca ka nga jàpp ne kii moo ëppal njariñ jaam ñi ëppal njariñ diini ji loolu jullit bi àq la joo xam ne dañ koo may ñépp jullit yi doon ñenn ca ñooñee waaye boo xoolee li xaw a metti mooy melokaan wi jullit yi di dund day feeñ ci lu bare bari ki jóg di tànni nit di wut ku ko tànn nit la ku ñëw tàllal ay loxoom da leen ay waaye tànn leen ma jiital leen ma kooka lan lay xalaat mooy ñii luñ gën a bëgg ba ma ba defal leen ko luñ gën a bëgg ba ma defal leen ko wala ba ma dig leen ko ndax ñu tànn ma waaye boo dégloo yi jàpp ne mooy yi nit ñi gën a bëgg dégg gu ma kàddu diine yëkkatiku ca lool lool lool déggaguma kuy wax na sama programme daaray alxuraan yi nii laa leen fas yéene def jàkka yi nii laa leen war a taxawoo courant baag ndox maag li ca aju danaa def lii loolu déggaguma ko lu mel noonu nag doo cay yedd kay taxaw naan ay waay tànn leen ma waaye ka nga cay yedd mooy ka doonub jullit ba noppi yéeguñu ne lii mooy aajoom ka doon jullit ba àggal fexe ba dañoo yëg ne lay aajoom mooy gaz ba ak courant ba ak lay dem ca marché ba nga xam ne dañoo yëg ne yow yaa yëgle ne loolu nga soxla kon kay tànn bu ñëwee kay loolu la lay wax ne lii danaa la ci taxawal waaye su fekkoon dañoo yëg ne bokk na ci suñ yitte yi gën a kaw kawe suñ doom yi nekk ci mbedd yi di taxawalu di yalwaan fan la ñuy mën a jaar ba amal leen ay daara yoo xam ne dañ fay jàng seen diine ba doon ay jullit ci wàllu jikko jàng fa seen àdduna ba mën a jiitam réew doon ay jullit yu sell di dox ci kaw suuf di baax di baaxal bàyyi yalwaan bàyyi ay caaxaan bàyyi tappale fan la ñu mën a jaar ba amal daara yu mel noonu su doon mooy suñ itte ji ci kaw nun jullit yi ni di ko wax di ko waxtaane ci suñu garam place di ci dugg di ci génn ba kanaan ay waay tànn leen ma xam na loolu ci nun bu dikkee ci lu mel noonu lay tàmbalee loolu mooy benn bi beneen bi ci des moo di ñiy wër di wax tànn leen ma ñoom it jaadu na ñu yëg ne ñi ñuy waxal ci réew mi ñu ci ëpp jullit lañ kon lislaam jooju mat naa bàyyi xel li may wax li tax ma di ko wax damaa gis ci fa ma dëkk démb lu xew ci ku ñëw di tàllal nit ñi loxoom koo xam ne waxtu jullit timis la ñëw ci wetu jàkka nit ñi di julli timis ñu continuer nekk ca lañ nekk ci koo xam ne su dul woon jullit sax mën nañ ne yoonam bu boobaa yaraange ja jullit yi ñëw di ko wuy si te du jullit nit ña di julli taxawal ci jàkka ja ñuy tëgg ak a fecc ak a xaaxtaay su boobaa jullit ñooñu ngay yedd waaye da jullit boo xam ne bi nit ñi nekkee ci biir julli gi di julli ñuy tëgg ak fecc bu jël parole mi ngi wax ci naan dañoo war a defar jikko yi dañoo war a defar jikko yi waxtu julli kàddu yàlla taxaw nit ñi nekk ci jàkka ji yëkkati di julli nga samp sam dënd ci wet gi di tëgg di wax ne dañoo war a defar jikko yi kon wax dëgg yàlla loolu doonut loo xam ne luy rafetloo nit ki njort la wala muy dalal xelam ci ne jëmm ji man jullit bis bu ñuy sànni ca kees ya danaa ko mën a sànnil sama sama këyit ba ma yor kon mbir yi ay responsabilité la yoo xam ne faaw ñu bàyyi ko xel faaw ñu yëgante jullit yi xam lii seen àq xam lan mooy seen diine kay ñëw te soxla leen itam ñu fexe ba xamal ko ne ko seen itti jëpp jëpp du yi kese waaye itteel na leen yitam seen diine jii lu koy jëm kanam lu koy jëmale kanam seen jàkk yi nga xam ne ay mbooloy jullit di ay askan ñoo fiy julli di fi jàpp si di taal courant bi di jëfandikoo ndox mi te léeg-léeg ñu daggal leen seenu léeg-léeg ñu daggal leen seenum ndox yu mel noonu ci leen itteel la seen doom yi nekk ci mbedd bi nga xam ne eh, foo jaar dañuy gone gu yalwaan ci li sam xel di jëkk a dem mooy daara lu ko saafara ba ñuy jàng di jariñ seenum réew di jariñ seen diine loolu seen itte la rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون